loolu am na solo question moom solo donc euh, le pourquoi de Wally Seck ñëpp xam nañ ni heure bii nii ki téye bës bi ci loxom ci kàttanu yàlla ak mbaaxam Wally la le pourquoi mooy Kër Massar mosu fi ñëw maanaam notamment dans la banlieue surtout dans la zone des Niayes ñu ne nañ ko fi andi parce que ñu bëri dañ ne woon war loolu mënul nekk wala gëmuñu ko woon léegi nag li ko waral dinañ ci ñëw ci kanam tuuti incha allah mais ñi ne woon mënul nek ci day aussi c'est la nouvelle ville le nouveau département on est fier d'être des Massarois et on veut montrer encore aux Sénégalais que keur Massar am intellect ay nit notamment ñu Production ak Africanité ak ñeneen ñëpp ñi nga ngi fi di def lu baax loolu Sénégal won aduna que ni dis dis dis ñun am nañ opportunité wu ak euh, xarañte indi ko fii ci Kër masaa voilà. waaw li ñu ko bëgg a andi Kër Massar euh, mun nañ wax Kër Massar village mun nañ wax Kër Massar MTOA mun nañ wax euh, Kër Massar Béban Kër Massar Nord surtout nag en face foyer des jeunes mooy bi nga xamante ne. mooy seul espace bi nga xamante ne Kër Massar am na ko pour mën ko organiser yenn événement yu mag yi incha allah foofu lañ ko bëgg dalal dinañ fa def base bu mag boo xamante ne euh, bu ñëwee comme Kër Massar moom amuñu benn estade boo xamante ne war nañ mën a dugal suñuy suñuy estades yi foofu rek leen am boo am ne nañ opportunité base foofu nga di base def ay turbine incha allah rabi mu am sécurité aussi parce que lépp prévoir nañ ko nekkul ne dañuy indi waa li kese te prévoir wuñ lépp lépp loo xamante ne luy sécurité la incha allah rabi di ngeen ko fa gis maanaam ku fa nar a yëngal moom boo xamee ngay deewee loolu moom prévoir nañ ko. prévoir nañ aussi tamit base boo xamante ne moom mooy wër foofu yëpp ba nga xamante ne ku taxaw si biti doo dugg organisation bu jaar yoon bi ngeen di gis national international gars yi di ko organiser ñun loolu leen gëm ne banlieue bi mën nañ ko organiser parce que li tax ñu andi fi waali ñu bëri dañ jàpp ne banlieue bi ay sàccax mandeex tux boon kese lañ leen xamee ñun ñu ne non non xar kanamu banlieue bi dañ ko war a changer te Kër Massar dafa nekk instant bi département muy six communes yoo xamante ne daf ko dajale muy euh, Malika yëmbal nord yëmbal sud Kër Massar nord Kër Massar sud ak Jaxaay kon tey ji nekkatul commune bu ndaw dañuy wax loolu rek mais boo xoolee ay Tivaouane Pël Jaxaay Tivaouane Pël Mbambilor yooyu yëpp mun na ne Kër Massar mooy zone instant bi te population bi ñoo ko soxla waa li nekkul ne ñun ñoo ko soxla ñun ñoo opté pour def ko pour jëli ko andi ko non non bi ñoo ko soxla parce que am na ay conseils yu fi jot a jaar gars yi xam ne carrément li war a am Kër Massar pour mu amul kan moo ko mën a yëngal mooy xale bi nga xamante moo xew si jamono loolu yàlla moo ko def du ñun yàlla ko def mun nangu ko ak ñu bañ ko nangu loolu mooy li nekk léegi nag si nga dafa bañoon xuus sànq si objectif yi ak li tax ñu andi waay am na ko fi laaj sànq ñun ku xam africanité xam infidèle production da ngay xam ne si social la ñuy nekk si la ñuy œuvrer moo waral tey jii collaboration bi am parce que structures yi nekk Kër Massar bëri na mais li tax ñun ñaar ñaari structures yi ñu opté ñu dajaloo boole seen doole pour organiser bés parce que dañ ñoo xam si social waale dañu gis ne dañuy am ay nit ñu bari ñu ni demande sociale si côté maladie ñoo xam dañu feebar dafa nekk hôpital duñ am lu fajoo ñeneen ñi am paas bu leen yóbbu bitim réew léegi nag ñu gis ne ñun buñ boolee suñu doole loolu war nañ ko mën a saafara maanaam li ñuy organiser nga xamante ne waale day ñëw Kër Massar buñ ko organiser incha allah rabbi lépp lu ci am pour recette dañuy bëgg jàppale ñi si hôpital bi nga xamante ne ñu nga fa tëdd te amuñu loolu mooy objectif mais nekkul ne loo xamante ne dañ koy def pour dugal suñu poos xaalis bu ñuy dugal suñu poos non non dañ bëgg jàppale ñi nga xamante ne seen loxo da ci jotul seen ginnaaw yu si mel ni ndong daara yi nga xamante ñu ngi gis mbedd yi ñuy taxawaalu ak yeneen ak yeneen yoo xamante social loolu moo waral ñëw waale bi gën a am solo sax du concert kese pour feccax way kese mais dañu bëgg a def social marqué suñu empreinte si social te incha allah rabbi li nga xamante ne mooy innovation bi sax si journée bi mooy à part concert am na loo xamante ni moom mooy jiitu concert bi incha allah mooy lu ñu namm nit nag jaam ak pexeem rek mais yàlla mooy mottali suñu bëgg-bëgg daal bu fekkee sotti na mooy bëgg neen andi waal yi Kër Massar du benn yoon bii dina ñëw si biir koor gi incha allah ñu def ndogu de solidarité ak moom dugg si biir hôpital yi mu ngeen gis waal yi mu dugg si biir hôpital yi joxe fa ay ndogu de solidarité ñu dugg si biir daara yi joxe fa ay ndogu si biir koor gi leen ko bëgg mais après koor gi nag bi nga xamante ne

Pape Moussa Camara jënd na xaaj bi maanaam bu fekkee par exemple quinze mille la waroon jar dañ koy jaayee di mille bu naroon jar dix mille ñu jaayee ko cent mille loolu aussi lu am solo la ma bëgg public bi apprécier loolu voilà léegi am na lu am solo lu benn journaliste laaj léegi mooy 30 millions 50 millions mais Kër Massar am na lu ëpp loolu léegi nag comme social la ñuy def bu ñu boolee suñuy doole loolu moo waral tey ñu mën déplacé Wally waaw loolu moo waral ñu mën a déplacé Wally ba nga xamante ne dina ñëw pour def show bi waaw ndax am na ñu nekk suñu ginnaaw am na ñu nekkul suñu ginnaaw li ci ëpp solo daal mooy boole nañ suñuy doole ci kàttanu yàlla pour indi fi Wally waaw balaa ma ñëw sa question damay ñëw si question sunu ndaanaango bi euh, wax ne ndax autorité yi yëg nañ ko wala yëguñu ko pour l'instant à part si panel yi wala si plateforme yi xam naa fa lañ ko yëgeegu mais suñu yéene mooy autorité bépp bu nekk Sénégal ñu tàmbale ko nag si président de la république mun nañ ne sax dañ ko koy tuddee ak Marème Faye Sall parce que ñoom ñooy première autorité si kër Sénégal kon tey mun nañ ne moom lañu tuddee bés bi soxna si dooga ñëw nag wàcc si autorités yi nga xam ne ñooy autorité locale yi képp kuy autorité te bëgg def social te bëgg jàppale population bi jàppal ne africanité boo ko yëgee boo ko yëgul yëpp tàllal na la loxoom te bëgg nañ ñëw si yow jox na suñu invitation daf la parrain wala ñu def la marraine kon côté boobu noonu na ñëpp jàppale mbir mi seen mbir la du yëfu kenn nit ay ndaw ñoo ko organisé ay ndaw yi ko organisé amuñu couleur parti faruñu ci benn parti faruñu ci benn mouvement ay ndaw leen yoo xamante dañ yàgg liggéey seen population gëm ne war nañ fi mën ne andi état bu dul sax Wally Seck te dañ ko gëm te war na mën a nekk gëm-gëm boobu rek mooy li fi nekk moo ñu fi téye kon ñu ngi tàllal ñëpp seen loxo di tàllal loxo tam partenaires yi ñi nga xam dañuy yor ay structure bëgg ñu def leen ay logo joxe seen logo ñu def ko fii ñooñ aussi tam ñu ngi leen tàllal pour ñu ñëw ñu mel ni ay sédiments demee noonu ñoom ñëpp ñu leen tàllal loxo pour ñu ñëw ci bés bi bon benen bi nga bi laaj espace bi nga concert artistes d'abord avant nous, nek sax ay promoteurs wala ay affaire yoy ay artistes Nous kon xam li ci concert aussi li organiser concert aussi concert gëm concert bi sax ku Nous place ñun lool nous parce que nous yi ñuy waxe yow rek nous ci ay pour nous bu jaaree sa promotion bi mu war a am rek gëm naa dina dina dina fees bay tuur loolu moom amul luñ si ragal quoi incha allah. kon tey jii loolu yëpp ay waxtaan la quoi ndax demandé sax est-ce que dina am ku ku laaj mais ñu lay sant bu baax di ko jóge ci sa bo juste pour dire que bu fekk woon que ni def nañ constat bi ba je dis que ni jarul woon ñu ñu ñuy dajalu fi def nañ remarque bi déplacer wu nañ aussi sol suñuy dal mais daanaka hôpital bu ñu dugg li ñu fay fekk du ñu neex mhm. donc loolu bokk na ci li gën a tax sax on a réuni tous les moyens possibles demandé à président à ce que mu may ambulance et cetera donc pour résoudre le problème par rapport à ça moi ñu ne pourquoi pas ñu des événement et revenu ici ñu si récolté incha allah ñu yóbbu ko ci école yi yóbbu ko ci hôpital yi ak ñenn ñi nga xamante ni soxla nañ ndimbal seen loxo jotul seen tout à l'heure aussi dégg naa ku poser question par rapport à la sécurité mm-hmm. pour dire juste qu'on a pris toutes les dispositions nécessaires c'est-à-dire qui waxtan instant bi ak benn agence de sécurité et on est prêt à débourser quatre fourgons blindés mm-hmm. et l'ambulance aussi fàttewuñu ko parce qu'on parle de de de la star du pays on parle de Wally Seck c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas les autres Wally c'est le ténor de la musique sénégalaise mm-hmm. donc xam nañ bu baax impact bi événement bi di et surtout loolu moo tax ñu gën a waxtaan dajaloo wala suñuy idée suñuy xel ak suñuy xalaat pour nous mën garantir garantir euh, sénégalais buy parce que c'est pas seulement la population massaroise qui y sera il y aura autant de personnes qui sera à l'extérieur c'est-à-dire les populations de Diamogue, de etc. etc cetera Nous nous ñun calculer genre juste pour nous créer des voies de dégagement ça sera sécurisé pour que nous puissions aussi ñëw ci puissions afin que nous def waaw incha allah xam dinañ mais comme événement international et national dina am artistes région pays moo tax li rek la def dara mais ku ci sa wërsëg nekk incha suñu ñun suñu selon l'emploi du temps du concert bu boobaa dinañ publier parce que du ñu ci point de presse mais dinañ def yeneen sortie de presse yoo xamante ne dinañ ci ànd ak waali parce que publicité bi mu ngi ñëw bu boobaa dinañ annoncé foofu naka la ak nan la mais tey toujours surprise rek de contact la woon daal aha du question que ni Wally Seck sax mooy nekk clé bi mais ñun ñii la muy infinity production ak africanité ndax soo xoolee structure ñaari structure yi boole seen doole yëpp ak ñi ñu àndal ñëpp am na ñoo xamante ne ñi ngi def politique am na ñoo xamante ne defuñu politique te en vérité concert bii nii volet social bi muy matériel yi ñu bëgg a yóbbu ci hôpitaux yi mais c'est une façon de créer l'unité de créer l'union dans Kër Massar parce que concert bi leer nañu ni li mu mën a dajale ci ay nit amul leneen loo xamante ne mën na ko donc bés boobu noonu Sénégal dinañ xam ne Kër saar benn bopp la du ñaar du ñett du ñeent te loolu ci biir koor gi incha allah ci ndogu de solidarité bi di ngeen gis que loolu mën na nekk ndax di ngeen gis parti yëpp mouvement yëpp groupement yëpp association yëpp dinañ boole seeni doole ñu xamal que ni ñun benn benn bopp nañ ku mu neex far fu la neex. mais Kër Massar bu soxlaa ñëpp dañuy ñàkk kon concert bi ni concert social la concert d'unité pour Kër Massar la d'unité national la aussi donc loolu moom question moom solo la waaw su ma waxee partenaire c'est pour vous dire que ni wéetuñu ci wéetuñu ci li ñu bëgg a def sa comme Pape Moussa Camara nga xamante ne tey moom jël na initiative ne damay jàpp li si des nag ci kanam loolu dinañ ci ñëw waaw question bi dafa mel ni ñun dañoo xeeb pour une petite histoire ñi ngeen gis ci table bi Fesmal bu amee Kër Massar tous les 30 lay am jëmm yu xeeb yi dox nañ ci wax ci francophonie am na ñu jàkkaarloog man boo amee jëm yu tuuti yi xeeb nañ te 30 ans ba 30 ans lay am kon ku décroché loolu boo ñëwee ànd ak waa infinité ñoom ñuy def ay. production yu mag pour la petite histoire film bi ñuy wax le cartel ñi ngeen di gis ñoo ko produire te ay vedette international ak ay star téléfilm ñu ngi ci gars yi dañoo modeste rek waale bu doon deux cent cinquante dañ koo koy fay bu doon cent cinquante millions wala trois cent millions dañ koo koy fay donc amul ay dañoo ngemb ak daa am ñu nekk suñu ginnaaw wala dafa kii déedéet suñu initiative bopp la lépp lu ci topp nag topp ci yaakaar naa tontu naa la ah, wala wala des na. waaw naka la ñuy def pour jaay xar ma xar kanamu Kër Massar mais à travers ce concert tey dinañ gis maanaam pàcc-pàcc yëpp joolaa yi séeréer mankaañ yi pour ne pas politiser dinañ gis waa Benno dinañ gis waa Yewwi dinañ gis waa PDS dinañ gis ñiy def santé dinañ gis ñiy def éducation. ñëpp boole seen doole ñu xam ne Kër Massar ay intellectuel ñoo fi nekk ndax intellectuel du question yor sa diplôme kese mën nga yor sa diplôme di te doo intellectuel foofu laay waxee jaay xar kanamu Kër Massar te dinañ jaay xar ma xar kanam Kër Massar mooy lan bu leen mos a yaakaar que ni concert bi dinañ xeeb jaaykatu ndox bi nekk Kër Massar bay jëli ji keneen dinañ xeeb jaaykatu sandwich bi bay jëli keneen dinañ xeeb jaaykatu gerte bi maanaam concert bi tey loo xamante ne dañuy valoriser. doomi Kër Massar ci kanamu Sénégal te bu ñu demee ba toll ci lu mel ni wàllum restauration beeg lépp doomi Kër Massar la ñuy jël ñoom ñooy jaay lekk yi ñoo koy togg bu ñu demee ba toll ci waru wàllum euh, sécurité bi ay agence de sécurité yu Kër Massar la ñuy dem fay duñ leen xeeb ñu ñëw liggéey am seen xaalis ban nañ ko ba fi ñu nar a parqué oto yi parce que leer nañu ni waali dina drainer ay dix mille personnes maanaam oto yooyu noonu xeeb nañ sax ay engrais terrain de football terrain la ñuy jël te ñu dëkk ci gox ba lañ ciy àndal liggéey ñu liggéey fayeeku loolu mooy jaay xar kanamu Kër Massar ñu xam ne ne wàllum ingénieur euh, maanaam intellectuel nit ku am xam-xam malgré les maigres ak moo am xaalis maanaam loolu am na biir Kër Massar donc foofu laay waxee jaay xar kanamu Kër Massar ñu xamante ne mbir mi. Kër Massar du ñu ndaw ñi dëkk biir Kër Massar ñu ndaw donc loolu laa loolu laa bon comme dernier mot ni ñu ubbee ngi ñëpp ñëpp ci ñu déglu bi ñu déglu rek juste que ni euh, Massar ak euh, Sénégal jot ci message euh, juste rek tout, tout, tout, que ni comme

kon tey jii war nañu mën a jàpp wala waa Kër Masar wala doomu Kër Masar ba nga xam ne tey jii dañu xam carrément li ñu war a def quoi ñoom loolu dara mënu ko pour waa Kër Masar. dara mënu ko pour ñu fi def kon nañu war a bu baax a baax a baax. jaajëf. sunu ndaanaan yi nekk si ginnaaw ñu leen jaajëfal wax di leen wax kontaan nañ trop euh, si si teew yi ñu teew fii di leen wax ne nag ah. dañ bëgg bañ nag dem ba léegi ci population bi ñëw taxawu nañu dugg dañ bëgg ngeen teel a def seen réservation jënd seen i jigéen nga xamante ne suñu da ngeen sangu ba naan si balcon ñëw dugg parce que Kër Massar dañu war a wane seen bopp si nombre wane ne dañu am personnalité waruñu bokk ak yenn gars yi nga xamante ne dañuy sàlle ci ñëw ñëw foofu pour sàlle sécurité nar a yëngal santeel sa yaay liggéey parce que li fa nar a andi si sécurité muy gendarmerie muy SDE Mbao muy presque sécurité locale bi non ku fa yëngal yërëm naa la quoi ñu ngi leen di jaajëfal waaw dañuy dellu santaat comme ni ñu tijjee woon dañuy dellu remercier leen pour la presse remercier su public bi yàlla jur si yonent ndax ñun duñu ci dara yàlla rek moo ñu jàppale ba tey lii am donc fi may revenir du ma jaar fi le 14 mai après le ramadan Wally Seck sera là avec les Massarois avec le Sénégal donc loolu dal lay tejé di len di len sante di len gërëm ndax amuñu merci jërëjëf